baax ji suñu see jëmb Fall. daan toll ci tonn ceeb ak diw ak lépp. Mm-hmm. dañoo noonu lañ fas yéene yeeslaat. Mm-hmm. muy dund bi xam ni mooy ñëw fii ci kër Cheikh Ibra Fall weer jot ñu indi fi ceeb ak diw ak suukar ak lépp. waaw di ko suñ ko waxee rek di ko ñaan mooy ndax. suñ mm-hmm. diggante yow moom moom rek moo ci doy. di ko ñaan mu yàgg fi loolu tëwér ni ñu la koy ñaanee saa su ne. di wax nga dooleel ñu ba loo bëgg rek ñu def ko. loo bëgg rek. ñu def ko. waaw waaw jërëjëf. ah kese la rek. bëgg rek nañ ko def. Ah, ñaanal ko Fall ak kese. Omar Omar hmm. alali maam si Ibrahima Fall. Hmm. comme ni nga ko waxee rek. Hmm. waaw dafa dellusiwaat. ndax li muy wax waxtu wu ne ak jaayante gi mu jaayante ak mbooloo mi nga xam ne moom la àndal. muy njabootu sëñ Touba. te yaa bëgg a jëfal Cheikh Ibrahima Fall. di ko jaare ci jëmmam ji di Omar Seck di alali maam Cheikh Ibrahima Fall. tey daa ñëwaat. indi fi ab ceeb. waaw ndax dafa wax dafa am loo xam ne daf koo saatloo woon hmm. ne weer wu dee wu ne hmm. daan soññu murid yi li jëm ci sëriñ bi jëm ci dundu kër sëriñ bi hmm. mu di ci jaayante waaw tey ji indi na ab tonam ceeb ton tàmbale ko tàmbale waaw waaw di sàkku nag moom nga yeesal ndigal ci moom ndax ñoom li leen di dundal mooy li leen di jàppale ak li leen di suuxat mooy ndigal mooy ndigal waaw lu teggiku rek bu leen ci yërëm na sëñ Cheikh mun dafa waxoon rek. waaw ab taalibe moom. Eh, deesu ko maanaam saa bu gëjee am saa bu gëjee am ndigal rek. ndigal rek day daal di xomaat. waaw na nekk ci ndigal rek. waaw loolu daal lay sàkkuwaat tey jii. ñëw ak ñëwal mbooloo mi yëpp nag. Hmm. di sàkku ak ñaan. waaw nga ñaanal ko. ñi ciy tàbbi seen alal di ci dem. Hmm. suñu borom bi yàlla gën a barkeel la ñuy def ndax ñaa ngi cey gis seen bopp nag ñi ciy jëf. Hmm. ña ngi cey gis seen bopp bu baax. waaw daa bëgg nag ñu am gudd fan am pajum aajo bañ gën a liggéey Cheikh Ibra muy wàññi ay milliards di la ko andil loolu moo di yéeneem te loolu la bëgg waaw mi ngi taaxee lu ne toog di déglu seen digal rek saa bu la soobee ak noo ko bëggee ak loo bëgg rek loolu rek lay sàkk far <laughs> yaaram ñu wax lu sedd la alhamdulilah eh, ginnaaw bu liggéey bu mu yootu waaw yàlla na yàlla jëm kanam amiin te naa ko liggéey liggéey bu sedd ab xol. Mhm. nii muy liggéey saa xol sedd nañ man saa bopp. alhamdulilah te man maa fi nekkal si xabaar. yow nag li ngay liggéey sama xol sedd bu baax a baax kontaan nañ ci baax a baax li bëggee nag nga liggéey rek bañ bañ a déglu kenn lu may liggéey liggéey ne yàlla def nga xam. jëfati Serigne Cheikh Fall jëmb yal na yàlla doole leeram barke Cheikh Ibrahima Fall Lamp Ba di ñaanal di Fall sëriñ Modou Fall Menda mu yàgg fi loolu te mu mel ne ne tey jii dañoo ñëwoon fii ci Jannatul Mahwa doon andi addiye la cinq bi mooy dund bi ñu baaxoo yóbbu ko baaxoon yóbbu ko si Yara ñu tàmbale woon ko Serigne Cheikh Jëmb Fall daal fa euh, euh, cinq mu diw suukar euh, bi mu ñibbee àjjana ñu tàmbale woon ko sëñ di yàlla dogaloon mu joxoon ñu ab liggéey nañu nekk leen ci loola biñ ko rtee pare mu yeeslaat ndigal loolu ñu indi tey la cinq bi nag euh, fu mu joxaale ñu ndigalul waajtaayu tabaski bi ndax dafa bëgg nee na tabaski yi ñu jëm euh, mu yóbbu ci lim boo xam ne kenn mësu koo yóbbu ci Serigne Mountakha comme ni mu ko defee ci koor gi lim loolu nag ndigal loolu la ñu jox euh, ñu ciy woo mboolem ku ne ci réew mi ak bitim réew ndigal loolu la doomam ji di porte-parole am di Serigne Dame Solo doon jàllale léegi mooy ndigalu tabaski lii ndax sëriñ bi dafa wax ne lim bëgg yóbbu ci ab lim kawe na lim ba wax na ko te lim ba ku dégg sax da nga xam ne lii eh, du du du jëf ju ndaw ba di dégg gi day day day day day fat day day day dafa kiimaane ndax lim bu kawe la boo xam te ni def koo bëgg daal ñu ci wax nag ne alali seer faal nañ ci ràññeeku lool loolu ndigal loolu la ñu wax léegi moom la ñuy ñu ngi ñëpp nag. waa réew mi ak bitim réew di nuyu nag waa alali seer faal gépp eh, njiital bàmmati kebe fii ci réew mi. Euh, ak ñi fi nekkal ñëpp mitim réew suñu mor jaaxar bi ak ñi fa nekkal ñëpp di nuyu suñu Bokar Diouf ak e, e, mboolem waa daara ji ñëpp suñu baaw kër yaa jawt marahim ñëpp ñu ngi leen siyaar di jël nuyoo beeg siyaar tam ci loxo sama jàll si tamit te gën mu xàgg leen di siyaar ñëpp di jox kàddu gi Serigne Cheikh Diaw jawt marahim mu leeral ndigal li Serigne bi joxee ci e, tabaski yi ñu jëm ak ni mu bëgg àll si doxal ko ci. Euh, bu ñu paree nag euh, dinañ joxe numéro yi dañ ko bind ci affiche bi ku ci bëgg barkeelu numéro yooyu ñu joxe nag képp ku ci dugal addiya dana agsi ci alal ji waaye yeneen numéro yi bokkut ak numéro yi ku ci jaar addiya it euh, ñun numéro yi lañ joxe. 78 534 89 11 Omar Seck muy man wala 78 77 649 95 88. muy Diagne Cissé am na Wave am na Orange Money wala 78 466 25 16 mooy Korea numéro yooyu ku ci jaarale xaddi ji dina agsi keneen ko jaara ci numéro yooyu nag eh, te amoon ndigal lu jaar la ko fa duñ am ndax dafa am ñoo xam te nii dañuy jaar seen addiye feneen te duñ ci jot ñun léeg dañuy dégg ñu ne joxoon nañ ko diw rek te ñun duñ ci jot looloo waral nag ñu joxe numéro yi numéro yi mooy numéro yi wóor yoo xam ne ku ci jaarale dina ci jot wasalaamaaleykum wa barakaatuhu jërë ngeen jëf. ñu ngi nuyu ñëpp di nuyu képp kuy dégg sunu kàddu tey ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha mu yàgg fi la tànn ak wér tey ñaanal baax sëriñ Amady Fall moom sëriñ Modou Mbène di siyaar bu baax waa daal Aliou Mame Cheikh Fall tey ñaanal jëwrin ji Seydina Amar sunu borom dolli ko dëbb kàttan te dolli ko defal ndimbal ba fépp foo xam ne yéen waa yóbbu liggéey rek mu ànd ko ak daara ñëpp yóbbu ko fa kàddu yu gàtt rek yoo xam ne dañ koy sof ci kàddoom te lépp di ci ay kàddu yu ndigalam rek ci ndigal loo xam ne daara ji dañ ko xamati mooy daara Al Imam Cheikh Rafal sëñam di jaare ko ci moom ndigal loo xam ne eh, ni ni mu daan demee eh, dañoo bëgg mu xa ndax kenn ku ne xam ne ne eh, tabaski gi jàll waa daara Al Imam Cheikh Ibrahima Fall tolloon na lim bi ñu joxoon suñu seex jëm mi ngi tolloon ci juróom-benn fukki xar ak benn di 66 toll limu Allah ba noppi loolu ñu amaat yeneen tawfeex joo xam ne boo gisee loolu tamit boo jëlee yoon tamit la muy tegtale mooy 66 66 lay peese yoon kon daa da dañoo wa dañoo waxoon ni liggéey bi day dox aw yoon la rek day dox dox boobu nag dañoo dañoo bëgg ren mu faw xa mu faw xa gën a yokk te jëwriñ ji yéen a jooj la am daal di ci mit ñëpp yéen a jooj lay am kon ñu ngi ci soñ ñëpp di ñaan nag niñ ko bëggee ak ni ko sëriñ bi bëgg yàlla nañ ko amee noonu barkeb Cheikhul Khadim bismillaahi rahmaani rahim maa ngi dellusiwaat di nuyu bokki taalibe yëpp nag di nuyu murit yëpp nag di leen siyaare bu baax a baax kàddu yi may yëkkati nag du kàddu yoo xam ne dafa bàyyi ko sëriñ bi mu jox ma ko muy ndigal lu may jottali kàddu la yoo xam ne samay kàddu bopp la man ak ñi ma bokkal xalaat ci wetu sëriñ bi te ñu doon ay seere walla ñu mat seere sëkk nag ci jëf ji nga xam ne walla liggéey bi nga xam ne moom lanu bëgg a seere nag taalibe yëpp dégg ko ndax lu baax moom yàlla moo ko moom te sunu am Cheikh Ibrahima Fall dafa am lu mu jaayante woon ak sëñ Touba da ko ne woon féeteel ak yàlla ma féete ak yow lépp lu war a dox lu mën a gàllankoor sa digg ak sa borom loola danaa fa féete ba sa digg ak sa borom lépp yéwén ba ni ko bëggee nga amee ko ni kenn ku ne xam na ni loolu Cheikh Fall jaayante woon ak sëñ Touba Cheikh Fall am na ko ndax loolu moo ko jural. turam yi di babul muridin lu nit bëgg-bëgg sëñ Bàmba rek dangay ngay roy Seex Ibra soog a nuru ab taalibe wala nga soog a doon ab taalibe ñii nga xam ne nag ñoo waral may yëkkati sama kàddu muy alali maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ Omar Seck mii ma dendal jiite leen di seen njiit dafa am liggéey bu bari boo xam ne dama see mat seere si ñoom moom laa bëggoon a seere nag muy taalibe buy seere moromam taalibeem ndax ba nu sëriñ Serigne Amdi Fall mii ak léegi liggéey bu nu fi indi taxawu ko rek liggéey boobee mat naa sa seere sëkk ndax su ma ko jottaliwut it ba sëriñ bi jot si sant leen fekke naa jottali ba wala boog yëg naa ko te it may toog fi wetu sëriñ bi waxtu wu ne may dégg sëriñ bi kàddu yi muy wax si ñoom ak seere su muy seere si ñoom te loolal la tax sëriñ bi di ko wax sëriñ bi dafa am lu mu xam si ñoom loo xam ne xaj na moo ko sa def nag moom moo ko xam waaye la mu gis sa ñoom xam ko ñun loola dafa doon ab soññee si nun ñu xam ne yoonu kër Seera Fall bi jëf dong la laaj waaye laajul leneen yaar yi boo ko fi jëlee dara du fi des muy bëgg sëriñ bi ak jëfal ko te yàlla rek a tax loolu rek mooy yoon wi ñoom nag seen jëf si liggéeyub sëriñ Amdi Fall bii day jëf ju ràññiku ndax fu fi sëriñ bi mas a toll rek muy keroog bi Serigne Cheikh Fall jëmb làqoo si sunuy bët ba fii nu tollu ñuy waajal tabaski gi amul wenn waxtu boo xamante ni bii seen jëf ak siwul si sëriñ bi léegi rek la mujj ñu wàcce léegi tonu ceeb boo xamante ni bii ab dund la bu jëm ci kër sëriñ bi muy muy firndeel li nuy ne ab taalibe moom du noppalu ab taalibe du wàcc tànk ñi ngi noyyi tànk ñi ngi man jëfe ndigalu sëriñ bi gàccu ci sunu kaw te duñu wàcc mukk waaye nag nangu gi ñuy nangu jëfal sëriñ bi ak mbégte mi nu si am moo nu koy taawul ba jëf ji dina wayaf toy may seereel nag yéen alali maam Cheikh Ibrahima Fall yéen ne biir réew mi ak bitim réew xaw ma leen lu ngeen jaayantee ak Serigne Omar waaye lépp lu ngeen mas a jëf jaarale ko si moom day moom de yëkkati na lu bari def ko si lu ngeen yëgut jox ko sëriñ bi. te loolu mën naa ko waat ci barkeb Cheikh Ibrahima Fall mi nga xam ne noo ko bokk gis naa ne jëf ji muy jëf di ko indi si sëriñ bi du ne rek murit yi ñoo ko koy jox wala yéen yi mu bokkal liggéey bi yéen ko koy jox ndax mat naa seere si jaayante yi muy jaayante yoo xamante ni waxuma ko ngir yëkkati ko ndax bu jëfutoon daraat lii dara nekkaluma lu ma si barkeb Cheikh Ibrahima Fall damaa gis jëfam te ma xam ne yoon wi lii bu fi jógee dara desu fi moo tax ma xam ne danaa ko seere yéen ñi ma bokkal alali maam Cheikh Ibrahima Fall ndax man maa ngi si biir ngeen xam ne liggéey bii nga xam ne moom la Serigne Omar Seck ngeen teg ko si kanamam mu jiite ko liggéey bi de ni ko sëriñ Omar taxawoo du ma ne raw nañu raw raw na ñëpp de waaye raw nañu bari de raw nañu baree baree bari ndax yoon wi jëf dong njëkk fee jébbaloog njëkk ki yooyu yëpp amul njariñ xam nga li am njariñ mooy ëpp jëf li sëriñ bi bëgg te mënta ñàkk nga fexe ba loola am loolu mooy ak taalibe te moom loolu mu ngi si mësta noppalu mësta agsi fi sëriñ bi te ànduwul liggéey boo xam ne da koy jébbale si turu alali maam Cheikh Ibrahima Fall loolu laa leen bëgg a seereel yéen alali Cheikh Ibrahima Fall démb lañu yóbbu ay gëléem yoo xam ne bokk na si àddiyee jëm fi mujj a indi sëriñ bi ne nañ ko fi bàyyi ndax dama koy yót sëñ Muntaxa muy gëléem yi ñu jiital démb loolee bokk na si àddiyee jëm fi mujj indi si koor gi ñu yót ko sëñ Muntaxa vidéo bi ñu bari seetaan nañ ko sëriñ Serigne Mountakha bég si mbégte moo xamante ni mii yaakaar naa bëriwul lu mu koy bég te loolu lenn rek la si jëfam lépp lu mu am rek indi na jox na ko Serigne bi te mësta jox sëriñ bi dara si turam moom turu alali maam Cheikh Rafa rek la. lu si bëree bëri sax dinay wax ne jottalil ma ko te man du ma ñëw ma ne ko da nga ñëw ndax jëf ji jaar si yow war a àgg fi sëriñ bi da nga teew fi si kanamu sëriñ bi ñu seeral ko sëriñ bi kon nag sëñ Omar la leen leer ni liggéey bii. nii ngeen taxawee ba li sëriñ bi bëgg mu am ko ndam yi jàll yëpp nag muy màggal geek muy gàmm gaag muy sikkar saak muy liggéey bee sa mbàkke ba si koor gii nu génn man seere naa barkeb Cheikh Ibrahima Fall billaahi wallaahi ak waxtu wi si seenu taxawaay si liggéey boobu bu ko murit yëpp gisoon danañ dana doon ab soññ si ñëpp danañ xam ni jëf rekk am solo te tiitaroowu leen ko puukareewu leen ko wonewu leen defu leen ngir di wane ne ñoo jëf lii wala lii da ngeen koo def te yàlla rek tax ak liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall loolu laa bëggoon a seereel yéen sama bokk yi ma bokkal alil maam Cheikh Fall ngeen xam ne liggéey bii dey àgg na foo xam ne si sëriñ bi bu nu jàppoon benn ñun ñëpp war nañoo jaajuwaat ñun ñëpp war nañoo waat te xam ne jëfal sëriñ bi mu nangul la ko loola loola day lu jafe la te sëriñ bi nangul na leen seen jëf. keroog bi sëñ Omar mii di waaje ñëw muy ñaareelu kumte lu ko jiitu ñaari fan toog nañ ci saal bi ba yàgg mu ne ma ana sëñ Omar egsi naa ma ne ko sëñ Omar day mi ngi waaj mu ne ma jàmbaar la de waaw wax ci wax joo xam ne mu ne su ko wax sax si ab ab ab rajo wala ab tele kon nu xam ne ñun am nañ ndam kon nag ndam loolu yàlla sax dàkk nag tabaski yi ñu mal daal nañ si jaajuwaat bu baax a baax bu nu si kenn mën nag yoon wi nag boo santee faal ak boo santee neneen a si yam li fiy maye dara mooy joxe sa bopp doon ab taalibe rek waaw jëf jël nag la ñu wax lu waay jëf yaa ko moom kon nag nu fexe ba liggéey bii nii nu ko sëriñ bi digale waate te bokk nañ si ñim njëkk a woo digal ko ne ko na taxawu liggéey bii bu dul moom it yaakaar naa bu bu amee ñu ko sa jiitu bariwul ndax déggaguma ko kon nag kon xam ne sëñ bi am na cër bu mu leen jox boo xamante ne bii seen cëru bopp la loola nag mayeesu leen ko saraxusu da ngeen koo jëf te yàlla rek tax ak jëmmi Seera faal kon nag yàlla nu sëriñ bi dollee jàppale moom mu nu ko yan nag dinañu téeñal ba mu woyof tooy yi ni mu ko bëgg daal nu amee ko ni barke maam Cheikh Ibrahima Fall ñu dajabaat fii di jébbale addiye joo xamante ne jii dana dana yéem mbooleem ko dib taalibe wala ku bëgg lu baax dana la yéem ci sell ga ak bari ak baax ga ak ak ak lépp rek yàlla nu borom dimbali ban ma ne ko noonu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.